ngay gérer sa xaalis naka ngay épargner naka ngay moytoo am retraite fekk préparé woo. jox ndaw bu ne ay jumtukaay yi tax ba mu mun a xam ni koom-koom bi di doxee bés bu ne ak yombalal ko taxawaay gu dëgër ci kom bi ñu war koo jaarale ci tàggat ko ci wàllu woowu woowule. éducation financière day day changer comportement nit yi da ngay xam lan mooy important pour yow xaal boo amee xaalis euh, est-ce que da utiliser lépp wala est-ce que da ngay prévoir urgence par par exemple boo amee euh, accident par exemple euh, tu n'auras pas besoin de de courir pour aller emprunter parce que tu as déjà quelque chose à côté pour pour pouvoir mu doon lu am solo gannaaw bu ñu nemmeekoo jafe-jafe yu kër yu bëre di jànkonteel la jëm ci wàllum koom. bokk na ci mesures yi effort yi état bi di def pour dugal ñëpp ci système financier bi ñu ne aussi nañ former xale yi. ci affaire éducation financière parce que constaté nañ ne éducation financière duñ ko jàngale école éducation sanitaire duñ ko jàngale école en Afrique. ci diiru ñeenti fan yii la acteur daañu waxtaane ci lël bi programme bi tax ba ñu mën a tàggat xale yi ci wàllum koom. dajale acteurs yëpp waa ministère de l' éducation nationale de l' enseignement supérieur de la formation professionnelle ak acteurs financiers yëpp pour ñu élaborer. ay module yoo xam ne xale yi danañ ko comprendre sous forme de jeu. buñ ci noppee bi projet mën naa tax ba ñu am benn écosystème biy gën a dëgëral taxawaayu ndaw ñi ci biir koom bu réewum Sénégal.